bonjour amis fidèles internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di amaat un réel plaisir euh, toujours ci li nga xamante ne moom mooy wu euh, tabaski bi actuellement ñu ngi marché HLM euh, seet si fi nag tey tailleur di ku wax événement wax tailleur ku lu ci ëpp tey nit ñi dañuy am benn quantité bu ama am solo dem di ñawlu souvent nag dañuy gis ne day am parfois ay altercation des fois ñaw yi du pare mais en tout cas boo leen bëggee xam loolu yëpp ak engouement beeg préparatif yeeg yooyu topp toppalee ñu en direct nee naa la Sénégal 7 lépp luy événement rek dafa koy topp en temps réel xam nga su baaxee rek ñu dem xooli tailleur yi. aja ñu lay fay soxna si. yow yaa géré ñaw góor yeeg euh, broderie yeeg yooyu. waaw man maay ñëw broderie ñëw baatu góor yi ak baatu jigéen yi man maa ko ñëw waaw man maa koy ñëw waaw métti na moom wax dëgg yàlla métti na mais ñu ngi sant rek xam nga liggéey moom benn yombul waaw. dañuy dañuy dañuy ñafe rek waaw ndax liggéey moom benn benn yombul waaw yëpp métti mais kenn ku nekk sa rôle la ngay def kenn ku nekk métier bi nga féete rek moom ngay def ñu baatu góor yi ay yére góor ñaw jigéen yi daami na moom lañu ñuy ci la ñuy yëngul waaw waaw non baatu baatu góor góor nag taxul mu seer noon de mais instant yi baatu ñaw sinuwaay yi moo ñu moo ñu moo moo ñu moo ñu sonal di di ko commencé di ko ñëw di ko jaay loolu moo ñu moo tax léegi may yëre góor léegi seeratul seeratul Sénégal seeratul Sénégal da ngay ñëw ba sonn da xaalis bi du demee noonu waaw gars yi baat yi baat yenn ñu ngi fay ay baat 3000 baat 3000. bu du woon sa temps normal yi da jël yëre góor koy ñëwee baat du ñëw 12000 francs waaw 12000. 12000 mais moo yàqu léegi. ah. mais qualité bi fa mu nekkoon ba léegi la nekk mais xam nga rek des fois da ngay ànd ak marché pour mën a liggéey woo ko deful doo doo ci génn waaw boo ci doo doo ci génn moo tax yenn saa yi nu gars yi liggéey rek ngay liggéey jéem a ànd ak ñoom pour ma pour pour nga mën a am dara mais soo ko deful doo doo liggéey parce que da ngay da ngay gis benn yére ñu ñëw ko ba mu ba mu ambale ko di di si fay 5000 da nga xam ne yaay def sa jël sa temps courant bi ngay lekk garantie yi ñu ciy def yëpp. bu ñëwee duñ la fay lu mooy 5000 francs loolu mënoo si gagné dara mënoo si gagné dara loolu moo tax liggéey bi yàqu mais boo ko defoo doo liggéey doo nga jëm obligé def ni gars yi def rek. message mooy laas gouvernement bi daal moo ñuy jàppale ñu jàppale ñu artisan yi comme yàlla moom la fi teg muy jeune comme comme ñun ñoo ngi leen di ñaanal suñ boroom jàppale leen si lépp ba yen biñ leen yen yal nañ ko réussir. ama tëyër moom tëyër bu ne jeexal naa ñaw loolu du yoon quoi tëyër warul jeexal ñaw. liir daa war a ñëw ah ñaw bu ñëw mu encaissé ko na ñëw bu ñëw war a jëlal parce que tamit beneen bi tamit faute bi si client yi tamit am na parce que dañuy ñëw nga ne leen fees naa ñu ne la doo fees naa la jox ñaw force parce que yaa ma taamu di ñawal yow sek at yaa may ñawal yaa may ñawal force fekkoon ne dañ la indil benn ñaw mais da ngay gis kenn nit ku ñëw indil la ñetti ñaw keneen ñëw indil la ñett léegi nag loolu si faute bi si téere wala client non non métier bi moom métier bi nag benn dafa laaj coow quoi métier bi moom métier bi coow la quoi. non non loolu loolu taamu nañ ko loolu moom xalal loolu moom suñu mbir la police force waaw parce que mënoo mënoo wax ne kii laay jël bàyyi kii ku ñëw da nga koy encaissé soo ko encaissé nag boo ñëwee ba xam ne ni leeral la yow fii la affaire bi yam boobaa ñuy encaissé ñuy matle matle ñuy matle ba tey moo ñu noonu parce que affaire bi moom kenn mëntu mbaral ñëpp ñawal naa ñëpp ñëpp ñëpp man loolu mosuma koy gis quoi man bi may jàng ñaw sama patron sax maanaam daf daan ma wax na ma téer boo dégg mun ne jeexal na ñaw kooku du téer mu ne téer dafa war a jël ñaw yu baree baree baree baree bari di jël ku ñëw mu jël ko même buñ ne suba la tabaski sax bu ñëwee na ko encaissé a jël si seen yére dem tabaski ji nag bu ñëwee lu ñuy wax non bu ñëwee yu pare ñu jël ko pare parewul mooy loolu <laughs> gese nga xaalis si jàmm. ah non non na ñoo xam ne nii tamit dañ lay joxe ñoom mais doo man nga bañ jël man ngay jël bañ jël avance. parce que man du man ñëpp ñoo jox avance man am na ñoo ne dañ may jox ba jël si seen ñooy soog may fay. du ma jël benn avance man maa jël sama xaalis daboore ñawal leen li ma leen war a ñawal si war a dem yëpp ma def ko ci. ji lan moo tax ñaw cher. sax yomb na léegi tissu bu njëkkoon moo gënoon cher mais léegi ñaw bi moo gën a cher sax tissu. non ñaw seerul nag. gars yi seen loxo yi dafa tàng. ñaw seerul de xam nga yow tisi tisi tisi perlage yi ñaw ko moo gën a compliqué yii ñaw ko moo gën a compliqué gis naa ay tailleur jël marto di dóor mais <laughs> tisi du pour marto quoi man daal gëmu ma ne tisi war nañ koy dóoree marto ah. lii man duma ma dindi sama ndëggu du ma dindi dara nii laa koy ñawee te soo pusa mën naa ñaw tisi perlage robe ba mu mat wala taybaas ba mu mat bu may damu pusa ñaari pusa laay dam wala ñett paquet bi laay jënd rek teg sama pegg bu benn dammee ma génnee monté beneen mais du ma toj parce que tisi bi soie bi tisi bi tiil bi dafa oyof soo jëlee marto boo ko dóoree mën nay dagg tisi bi léegi nag kooku boromam mun na ko sol benn yoon ñaari yoon da nga gis tisi bi commencé bàyyi quoi fekk loolu fóotu téer bi la marto amul soxla si marto dañ ko bàyyi maçon yi ñun ñu jël si sëy voilà <laughs> non gars yi dañoo neex ah. ñu may gis parfois nga gis ko jël xomb xomb xomb yi nii xomb yi Hann Aéroport yi di dóor kak kak kak may ko bàyyi caaxaan ñawal wala nga bàyyi <laughs> waaw loolu la quoi voilà non yaa gën a ñun ñun buñ commencé fanaan ya bi yow yaay xool rek heure yi nga xam ne nii moom nga mën a wàcc parce que am na ñoo xam ne dañu dem ba trois heures ñu wàcc am na ñoo xam ne dañu dem ba quatre heures am na dañu dem ba six heures nga wàcc dem sa kër sangu dallu benn deux heures de temps boo xam ne danga nga koy nalaw nga ñëwaat parce que bu fekkee ne ni danga da bëgg euh, semaine bi yëpp nga ne da nga koy fanaan sa ñaw yi du pare da ngay sonn mais da def boo fanaanee trois jours benn fan bi nga wàcc une heure dem nalaw noonu la quoi man moom noonu laay fanaanee quoi voilà mais nag euh, enchaîné ko chaque jour ma wàcc six heures chaque jour ma wàcc six heures yooyu moom du ma ko def donte biñ commencé fanaan nag yàgg na torop nag yàgg na trop. baa baay ñëw nañ waaw client yi waaw ñëw nañ sant yàlla bu baax ñëw nañ dëkk bi dafa dëgg rek yooyu non loolu moom si loolu moom dëgg la c'est que xam nga lu tax dëkk bi maanaam li ñuy am suñ soxla yi moo ko ëpp boo amee 1000 francs di dépassé wu 10 xam nga day compliqué loolu mooy problème bi li ñuy fere moo bari maanaam matériel yi li ngay coos dëkk bi moo seer bu fekkee na ngay joxe dépasse dépasse dafa seer même popeline sax gars yokk nañ ko ah yaar bi daan jar quatre cent léegi cinq cent lañ la koy jaay wala six a wala cinq cent cinquante ça veut dire que mooy dëkk bi dara yombatu fi paquetu léegi da nga koy jëndee mille franc mais dëkk bi lu fi yomb kon dara yomb fi gars yi la ñu wax dëgg la de waaw ñu jàppale jeunes yi ñu ngi am jeunes yu am talent si dëkk bi jeunes yoo xam ne liggéey rek la ñuy def te bëgg nañ lu baax tey jii nii yow léegi instant bi dëkk bi boo duggee sax doo gis ku bëgg a jàng kuy jàng métier apprenti tailleur fii da ngay wër marché bi yëpp doo gis apprenti tailleur ah est-ce que xamuloo xamulu lool mooy métier mi lañ desal gannaaw maanaam boo amee ndaw yoo xam ne dañuy yëngatu si métier président bi da leen di jàppale soutenir leen après keneen xale bu leen gis dafay xeme métier moomu pour ñëw jàng si waaw ñu ngi koy voté mais yàlla na leen si yàlla jàppale parce que loolu ñun ñëpp loolu la ñu xaar ah. ñun ñëpp loolu la ñu xaar parce que bu fekkee ne dafa oyof si ñëpp lay ñëpp ñëpp ñoo koy yëngandoo mais bu fekkee ne dafa diis si ba tey ñun ñëpp koy yëngandoo parce que ñun ñoo dëkk si dëkk bi comme que ñoo dëkk si dëkk bi nag bu affaire bi yombee danañ mën a dund dund gu dund gu dund gu normal mais bu fekkee ne dafa métti tamit danañ dund mais dund gu métti la ñu dund parce que bu fekkee ne yow tey da nga am 1000 francs nga dem war a dépassé 2000 francs problème yi commencé nañ damaare xam nga loolu problème yi du jeex mais bu fekkee ne na affaire dafa yomb di nga mën a liggéey ba pare te di mën a di nga mën a di nga mën a def yu bëri quoi surtout nag courant bi nag dafa seer. courant bi ñun quinze mille francs dañ koy dugal tey laa ko trois jours mu jeex no non non bi non man ñaw xew ñaw xew laa ëpp lu may ñaw. ñaw jigéen waaw ñaw jigéen laa lu may ñaw ay ñaw xew ay waaw ñaw mariage yooyu waaw man yooyu laa ëpp lu may ñaw wax dëgg yàlla jigéen ñi laa ëpp lu may ñawal góor ñi nag danaa si ñawam dinaa leen ñawal mais ay benn benn rek. ñu toll nii moom sonn nañ mais alhamdulilah quoi alhamdulilah am nañu yaakaar bu baax quoi waaw waa client yi moom ñu ngi sant quoi ñu ngi sant bu baax ñu ngi ñëw waaw nice nice waaw loolu mënul ñàkk parce que ñëpp bëgg xam nga bu ñëpp bëggee moom force mooy loolu quoi am ñoo xam ne dañ xaw a xaar quoi mais ñu ngi góorgóorlu bu baax quoi. waaw la ñuy jël moom parce que Sénégal moo métti il faut nga am xaalis bi nga mën a dund. <laughs> Sénégal moo métti bëgg-bëgg yu bëri il faut nga am xaalis pour nga mën a dund quoi moo war ñu jël loolu yëpp mais ñu ngi si góorgóorlu bu baax a baax a baax waaw ñu ngi góorgóorlu fexe ba ñëpp kontaan kenn bañ a mer quoi. loolu daal ñëw yi yomb na yomb na yombul parce que kenn ku prix non ci façon ñëw yi la quoi waaw ci façon ñëw la quoi président waaye kontaan rek bëgg si moom ñun moom jomaay leen cent pour waaw Sonko moo nekk nii kii moom leen Sonko un kii mooy Sonko deux kii mooy Sonko trois man maa leen jiite ñoom ñëpp waaw maa leen jiite waaw waaw maay jamaay waaw <laughs> ok kontaan ñaw ngay faral di ñaw. waaw ñaw yëpp la ñuy ñaw ah yu jigéen lépp lu jigéen di soxla rek ñu ngi si góor ñi nag kii moo si kii moo si nekk waaw mooy borom 217 bi waaye patron bi rek moo toog ne moom mooy engagé ñaw yi voilà gis nga mooy dagg mooy def lépp quoi. dama ñëw pour passer sama commande pour bégal xale yi rek pour ñu kontaan. comme que yaay moom mënuñu nekk si tailleur yi mais vaut que ñu yóbbu leen rek si kii yi rek ndimbal njaboot bi rek yaa ma gën a xam rek jàpp ci combat bi comme que dëkk bi daa métti. <laughs> mais est-ce que bi actuellement ni euh, dina dox bu baax waaw waaw alhamdulilah kay dina dox moom sant yàlla rek xam nga moom yëpp yi moom nam daan neexee dootu fa neexee mais dañ ciy jàpp noonu rek pour sant yàlla rek yaa ma gën a xam gisee engouement tabaski bi ah waaw macha allah macha allah wax dëgg fa neex yàlla moom macha allah neex na trop ñu ngi koy pare ak ni ñu ko ku ne daal fi sa doole toolu daal. sa mbokku jigéen. ah sama mbokku jigéen xanaa ñu def ndànk rek te xam ne affaire benn fan rek la buñ ko bu buñ ci def loo xamante ne itam ëllëg bor daf ñu si fekk te jaru ko góor ñi bëgg na nañu mais dañoo amul mais ñu ñu ngi si marché du Dóor waar rek jàpp si combat bi rek. liggéey ngeen comme ni ko ni ko ni ko xale yi waxee ñëpp a liggéey. ñëpp liggéey ñoo ko fi am daal en tout cas.